ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ديكو جفنكو تي استراتيجي ميليتير بلو تار ستم زين العابدين نيو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مو جفنكو تي استراتيجي بوليتيك بلو تار ستم شيخ أحمد تيجاني الشريف جفنكو تي كادرو إيكونومي باسكو داني داني سيرفي تطور العلاقات داني كو سيرفي لولو موتاخ parce que yàlla bu waxee ni bu rattax sa loxo ci ëkk Ali ibn Abi Talib jëfandikoo na ko parce que mooy bi ñu ko ne na juboo am mu d'accord ci parce que ku jur yërëm ku jur yërëm ah, te ku jënd sa kanam ah, ku jur yërëm te ku jënd sa kanam loolu tax mu nangu ko buñ ko ne nak da nga wor alquran mu ni dedet wala tulqu bi aydikum ila taluka stratégie militaire ah Zeynul Abidin ñëw jamono politique politicien mo xew te fonk fonkatuñu kenn ndax lool waye mom itam xam nga ko jàmbari fak tëdd la dem na ci ak ñom ba won len ni ñom wax nañ ko ni da ngay jaamu xërëm legi waye fekk na jaamuwul xërëm dafa xam lu ñu xamul moo tax mu ne leen sama xam-xam wurs la ma yéen seen xam-xam mbuubit la loolu tax wala tulqu bi aydikum ila taaluka waaw boo dee mu kallaf bul jox sa dund ñoo xam ne dara du seen métier lu dul politique politicien bu ko def waaw mais sama turandoo ñëw jëfandikoo ko ci wàllu économie te mooy golo du bay ba bu dundee waaw wala tulqu bi aydikum ila taaluka waaw ah. kooku moo ko organisé ba tax na échec yi tariqa def yépp ku ne teg na ci bëtam seetal loolu échec yi tariqa def yépp ku ci ne teg na ci bëtam mais boo ko bañee nag yaa tooñ borom bi soo ko nangoo nag mu wut fu mu la jaarale et puis kooku loolu rekk la kooku loolu rekk la mu mel ni wala tulqu bi aydikum ila tahluka parce que cheikh it dafa bokkoon ci charte kuy jël tarixa bi mu ni la wutal métier parce que àdduna bu kenn amul métier catastrophe lay indi catastrophe ci kaw catastrophe xam nga kalimatu xaqin urida biha al batil ali ibn abi talib ko jëfan zeynul abidin doon ko ci moom cheikh doon ko ci zeynul abidin cheikh alhaji omar doon ko ci cheikh mawdo doon ko ci moom sëñ babacar doon ko ci mawdo ba ci man mii di wax ak yéen kalimatu xaqin ndaxte cheikh li mu digaloon njaboot yi xam nga cheikh du wax taalibe njaboot rekk lay wax walla soppe seetal loolu ndax Serigne Aline Gueye dama ni ko lu tax ngay lekk àddiya te dafa xaram ndax Omar ibn al Khattab ne dafa xaram mu ni ma dama loru moo tax te loroo tax nit di lekk métti waaw eh, ma xam ni loolu kenn amul loo ca teg ma ni ko waaye man nga am métier mu ni ci sama âge ma ni ko waaw mu ah, mënul ne ma ni ko même métier ñaari ci gën bu ci ne màgget mën na ko mooy mbay ak commerce mu mënuma ko mukk di ci waxtaan ak góor gi nag mu ni ma addiye buñ ko dee tere diggante taalibe ak sëriñ lañ ko tere waaye diggante soppeek soppe kenn deeru waaw te mu ni léegi taalibe amatul ay soppe rek am waaw mu ni ma soppe lu la jox waxuma ni dagan nag waaye gàllaaj la voilà ma ko wax ci lamiñam soppe lu mu la jox waxuma ni dagan na waaye gàllaaj la ci lam waaw te loolu am mu ni ma ndax li ci imam Shafii wax ku ne dégg na ko nee na الهدية هي علامة المحبة لا شك ها هو ما تلقي تالي بأمر سبكرة كام سبكرة نيب سبكرة نيب نعم. تسبب لهم لا جاهو أخماني دعنا نقول سين بابا كروا أخماني دعنا نم غلاك غلاك غلاك مملني كونك كلمة حق أريد بها الباطل كبك برم جمانو تعمل بچك بوكو جفنديكو سنك برم جمانو دسنا ما لكو أخ آه. نخ شيخ بيتالي بيم بينيوي نكو من دال غوورنر بيما نيكال دف ملجين te li nga ma digal yëpp maa ngi koy def maa ngi bay maa ngi def commerce waaye xam naa gis na sama wërsëg rek ah ñu di ma jaxaseeg moom ba sonal na ah ba bëggoon ñëw rek nga defal ma ci ñaan ni ko loolu kenn du ci def ñaan kese kese nañu dem ci gouverneur ba ñu àndandoo ñu àndandoo Cheikh war fas ànd ak njaboot bi ñu dem ci gouverneur bi mu ni ko loo jotee ak njaboot bi wax a wax a wax mu ni ko daal ñi ci quartier bi ma booleeg moom te man lu ma jullit wax ma ko te nee ñu nàngam nee ñu nàngam nee ñu nàngam te man lu ma jullit wax ma cheikh làmb sàkkosh bi mu amee génne ci kàmmilu alquran teg ko ci kanamu gouverneur bi ni ko teg ci sa loxo wax nit ñi ci quartier bi jullit lañ te ci quartier bi la gouverneur bi dëkk fi la xaadi bi dëkk fi ji dëkk waaye gouverneur bi ñemewul teg loxoom ci kaamil bi seetal loolu ah moo tax cheikh ni ko li nga wax ni quartier bi ay jullite ci dëkk kalimatu xaqin urida bi al batil setan lolu setan lolu xamni bok yëf yi delu ci na crise bay dox ba foofu yàlla dogal mu dal Cheikh El Hadj Omar la ci àndam yi daf ci am ko xamni mom moom rek la bu wujjeel te diko neub xam nga lolu dafa am fekk nit ko xamni leppam mat na nga fekk nit ko dara matul muy wujjeeg mom setan lol te diko neub nëbb fekk Cheikh El Hadj Omar xam na lépp wa fekk xam na ko ak ko xam benn bés nak muy solo pour ñëw set ci Cheikh El Hadj Omar dal di xund nak xul xul xul jabar jang koy deg dom jang koy deg waye bi mu solo ba sol mantom sol ay botam ñëw ba ci cheikh alxaaj omar mu sukk ci kanamam ni ko ay bu la lislaam amul woon nu muy def te kat ma ngi ko doon jëw ci kër gi cheikh alxaaj omar tey ci loxoom ni ko maduxun wa lammun fi maqaamin waaxidin min waaxidin li waaxidin ajaba li mu xam ne kalimatu xaqin urida bihal batil ku nekk dund nga ko bés ku nekk dund nga ko bés waaw su ko defee même sëñ Babacar si bés xam nga ay nit wax nañ ko parce que Senghor dem na fa mu ñaanal ko am ñu jàpp ni loolu jàdduwul seetal loolu li jaaduwul parce que Senghor c'est pas un musulman nangam nangam te yàlla wax ci alxuraan ni innamal mu'minuuna ixwa mu ni leen kalimatu xaqin urida bihal baatil te loolooy dëgg te loolooy dëgg kalimatu xaqin urida bihal baatil moo tax ñi nga xam ne ñooy asaabul waxtu kenn mënu leen yeey kenn mënu ko ndax dañu jub te dañu xam te dañu jàng te dañu am leen

man daal dama bëgg dama soxla Cheikh te bëgg waxtaan ak moom ci sa kanam en tout cas kooku dee baax na mën naa ko téléphoné wax ko ko mu telefone ma wax ma ko ma ne ko kon jarul ngay déplacé. dinaa ñëw sa kër jël la ñu dem seeti kilifa ko ndeke dañ ma booleeg moom man yëguma naka laa ànd ak ilimaan bi ba dugg ci biir kër gi rekk ma gis mu fas kanam te xam nga cheikh sama turandoo dafay wax ni ci la seet si ci sa kër nee na moom moom kër ga ba ba mu fàccoo waaw ne bu ko woon mukk kanam gu bon ki la seet si ci sa kër moom moom kër ga ba ba mu fa jóge loolu la Cheikh ah ma ñëw gis ma fas kanam dal di rek xasal xàññi ni waaw man dégg nga sëriñ li ma ci xam mooy deram ak kurusam bu ko passé de politique dina xam ne maa ko ci man ma ni ko yow li nga wax dafa am borom mu ni ma kuy borom ma ni ko Cheikh El Hadj Omar dama liyee ko ca bànj gara nga wax ko ko ma ni ko walla nga dem ca ñooro maamu ndari ña sant ba nga yee leen wax leen ko daldi jóg rek dem ca guddi ilimaan bi téléphoné ma ñoo man daal am naa mbett lool ndax dama defe noonu jàmm la lay doy waaye mu ni ma ba nga fa jógee daal toog nanu waxtu yàlla kenn waxul moom waxul man waxuma ndax danoo jot ba mu yàgg mu ni ma waaw lii de erreur la nanuy def ba dabaatal ko ma ni ko ah du bàyyi ba yeneen ni jamono moo parce que dafa garaaw di nga def lu garaaw nee na ma ma wax ko baquma ma ni ko parce que yéen da ngeen a dof ngay wax loolu Cheikh Tidiane ak foo ko teg waaye mujj na ko dabaatal ba lu ma nekk rek ma nga ci yàlla xam na ko ndax borom xel la te yooyu erreur la yooyu erreur la erreur bu garaaw la te mas naa ko wax Senghor mi ni ko li ngay tawat ci Sénégal yi danga wax ni amuñu sensu mesure daf koy tawat rek di ko tawat rek waaye bés bu ko Sénégalais yi jàppee ba bàyyi ko moom it dootul am sens su mesure da waaru sax parce que noonu la ñu mel ils sont comme ça yàlla xam na ko dañ ci daan soowoo maag moom kenn mënu ko nettali njëriñ la am mooy boo ko waxee dëgg mu nangu benn njëriñ la am mooy boo ko waxee dëgg mu nangu ko yàlla xam na ko daf fi xëy rek wax Amadou Cissé Diagne ni ko dissoudre ma fédération des associations islamiques du Sénégal dissoudre ko boobu Cissé Diagne mooy ministre de l'intérieur mu ne ko mukk duma ko def mu gëttu ko mu ko duma ko def parce que am ma fu ma teg sama tànk bu def ko duma ko def mu mer poser problème bi ci niveau parti euh Abdou Aziz ak Moustapha Cissé ñëw seet si wax ma affaire te comme sama association maa ko jox Abdou Aziz pour mu bok ci fédération bi ma it dama ci war a pexe mani len bu len ko xet mukk ndax man na indi guerre civile ci senegal man ma len ko wax parce que xamna limay wax ñu ni wa kon nañuy def mani poser len problème bi ci niveau assemblée nationale parce que di ndongo ba faw baaxul uh-huh. di ba faaw alkandela baaxul man leen dem leen seeti président assemblée bi Lamine Gueye la tudd te xam na yoon te ma bindal leen texte ngeen jox ko lettre wan ko ni ko sengoor a ngi dissoudre fédération bi te defoonu dara ma ni leen ngeen tànn ci député yi ñu am fit ngeen bindi leen lettre yëgal leen ni ñu ngi dissoudre fédération bi te defuñu dara man leen bu ngeen ko defee ba ku nekk jot lettre am bu ca ëllëg saa nag ngeen sug a bind noon noonu ngeen koy def man itam bu ngeen dee réunion bu leen dem seen siège mukk na ngeen dem sama kër waaw na ngeen dem sama kër def fa réunion ndax foofu ku leen fa fekk bu leen reyee ngeen di shuhada waaw te loolu la góor yépp di waaw ku leen fa fekk bu leen reyee ngeen di martyr te seen maam yëpp ay martyr la waaw caaxaan baax ah Lamine Gueye jóg député yi jóg ñu saisir Senghor lu xew Senghor ne xaw ma lu xew waa ana lu xew man de xaw waaw soog a jot lettre am waaye ca bëccëg ba la ko saafara mu jeex waaw ca bëccëg ba la ko saafara mu jeex tax xam nga yooyu farata la farata la parce que lu dul dëgg nag du dëgg te fii noonu lañu mel yàlla xam na ko daf ma mas yebal bés ca aéroport ndax dafa am benn nitu diine bu rëy bu fi doon jaar mu ni ma demal teerul ma ko nga ni ko dama tawat moo tax mënuma ñëw ndax xam naa ni moom ci wàllu diine yàlla ko ci jox cër kon nag na nga ma àndal ak Sidi Alpha Ba ak Alioune Sène ngeen teerul ma ko ñu dem aéroport teeru ju ko ndeke am na ku ma fa gis rek dal di téléphoné Senghor ni ko àdduna ngi tukki ndax Cheikh Tidiane nga ca aéroport di teeru ji di Senghor ma ñëw Senghor ni wax xanaa dañu defee ni doxandéem nga ci réew mi ma ni ko doxandéem pire laa fi parce que duma wolof ko doxandéem la ma ko ñi ma am ci réew mii yëpp dëkkuñ ci réew mi Alaaji Malick dëkku fi Babacar Si dëkku fi Alaaji Abdou Kan dëkku fi dégg nga du lay dëkku fi ma ne ko kenn dëkku fi ku ma am ma ko ñun ñëpp ay doxandem lañu ci réew mu ree ba tey pour wax la ni kilifa toujours dafay bàyyi xel ci bopp lu am solo lu am solo lu am solo la walaay ndeysaan waaye loolu daf ko daan dal di ko dal wallaay ndeysaan mais boo ko waxee dëgg rek mun yàcc daal di d'accord wallaay ndeysaan dama xëy rek ñëw ñu ko man daal nii ngay def di ñëw ci buntu jumaa ji di seetaan julli gi danga ko war a bàyyi mu ni maa ah, xam ni ko waaw parce que gouverneur bi ko daan def daf nuy won ni mënu coloniser yow nag combattre nga colonialisme kon nag bu fa demati mu ni ma dootuma fa dem ma tëdd rek ñuy ñëw ni ko kii def la yëpp kii sa prestige la bañ a dégg moom la bañ a gis lii kenn mësuñu ko gis téele leen téele ba xol ba jóg ba xol ba jóg mu woo architecte bi defar jumaa ji ni ko defal ma benn tribune ci diggu jumaa te architecte bi tubaab la Assane de ko fi yebal mu ne ko sañuma ko mu ne ko bu ma koy def ñu di ma rendi waaw kon sama tànk dootul tegu ma moom bu fay ñu rendi ma rendi laaw waxuma fetal de dañ may rek ma tax duma ko def mu mer daal di woo ma Lamine Dieng wax ko ko ma Lamine Dieng jaaxle ñoom seet si ma ànd yàgg man leen bu leen ci dugg digganteem ak Collé la Collé c'est un architecte belge xam nga leen bu leen ci dugg mukk bàyyi leen ko rek comme wax na ko Collé mu gàntal ko yéen bu ngeen ci duggee rek yàq ñu bàyyi moo Collé bu mujj mu génn ci ba affaire Moussa Ballo bi ñëw ma ni ko ah boo bu ñaaree sa bakkan des ma ni ko buy ñaar rek sa bakkan di ci des parce que Moustapha xam naa ko maa ko yar mënul sax rey ganaar il est tellement généreux il est tellement gentil que boo ko reyloo woon ganaar mu lànk ma ni ko mais boo fa delloo ñii ñëw bi yoon ay anciens militaires la ñuy doon te dañ lay yàpp benn yoon nga ci doo fa dem mukk bàyyi na yàlla xam na ko pour wax la ni réew it looloo ca nekk réew looloo ca nekk boo waree wax rek nga wax ndax li ma Lamine Gueye waxoon ni doom boo noppee rek àdduna tudd waaw boo noppee rek àdduna tudd li ma man jaaxle naa lool ndax suñu fusion bi fusion BDS fusion BDS ak ECFIO mu ne ma am nañu ci seen xol tàlliwul te ñii man lañuy ñu féetal ñeneen Senghor la ñu féetal xol yi tàlliwu ci de ma ne war naa ci waxtaan wi ma ni ko mais koo soupçonné ci wàllu Senghor mu ni ma Mamadou Dia yàlla xam na ko laaj ko Mamadou Dia waxtaan bu rëy lañ ci waxtaan mag moom mu ni ma njuumte def ci am man lu ma ciy d'accord ak lu ma ci dul d'accord amul dama leen bàyyi ñoom ñaar ñuy kilifa nekk ca kaw man ma nekk ci suuf di liggéey kon nag loolu lu nit di bañ ak lu mu dil bañ amu ci ma wax ko kon nag xol bi su ko féex yàlla xam na ko yàlla xam na ko ba tax na yooyu kilifa dangay wax ak moom boo dee wax ak moom te fekk danga ko yéene jàmm foog yàlla barkeel ko waaw boo dee wax ak moom te yéenewuloo ko jàmm yàlla du ko barkeel kooku noonu rek la demee waaw kooku noonu rek la demee léeg-léeg nga wax kilifa loo xam ni bu fekkee ni yéen woo ko jàmm rek dana jur musiba yàlla am na ko ndeysaan ñu di ci waxtaan nag bés ndax dafa am xale bu baax a baax ñu di ko yàq ba yàq carrière mu wax ma téléphoné Senghor ma ni ko dama bëggoon ànd ak diw seet la mu ni tekk ba mu yàgg mu ni ma kon ñu def ko ajjuma ndax ajjuma jour audience la man ngeen ñëw ci 16 heures yàlla àtte ajjuma ci suba mu téléphoné ma ni ma na ngeen ko def dimanche ma xaar leen ca palais ba ndax kenn nekku fa man nekk fa nekk sama soxna dafa voyage ma daal di xam léegi ne problème bi dana réglé ci kàttanu yàlla ma fa ñëw fekk mu ngi amee journal ni ma jàngal article bi Amar Samb moo ko bind nee na mag ñi fi ni ñuy bindee espèce su

ci culture ba rek lay nekk di soow euh, mu ni ma loo ci xam ma ni ko mag ñi de dañu am benn doyen bu ñuy wax xaadima jaxate kala dafa wax ni xalima

parce que tout le monde écrit seetal hein. loolu lolo xew ci àdduna bi waaw kenn xamul ndax dañu feebaram feebaruñu waaye koo gis rek ma nga bi lum di te xam nga loolu c'est une maladie waaw kenn xamul loolu lan la euh, ndeysaan ñu continuer di waxtaan noonu ba ki ma àndal sax mu fàtte ko waaye bi mu gestoo gis ko ni ko ah pour affaire bi jeex na nanu bokk ndey bokk bàyyi rek nu àndandoo liggéey loolu moo gën ndax réew mi loolu la laaj nangam nangam daal di situation ba yépp mu defar ko seetal loolu baax na de loolu aayul aayul de aayul dëgg dëgg aayul euh, pour wax la rek ni mag ñi jàmbaar lañu parce que xalima bu ragalee yàlla du séduire nit waaye dana jëfloo borom maa la ko wax waaw waaw lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel moo yi yii ngay gis yëpp li ci ëpp yëpp ay paternalisme culturel rek paternalisme culturel mm-hmm. ñu ngi bëgg a rey nit ñi ay préeg yu kenn xamul doxe fii rek am nañu ñetti at ñetti at fii ci Sénégal kenn liggéeyul kenn ku ne ni yaay wutal Senghor prix Nobel dama nga ni loolu dëgg loolu dëgg kenn liggéeyatu prix Nobel prix Nobel prix Nobel bi ko yàlla dogalul amul bu ko yàlla dogalul amul te ku nekk jóg rek ni maa man maa man maa man prix Nobel prix Nobel ba Abdou Diouf ni ma loo ci xam teenoo ñaan ma ni ko abala ah, noo ñaan dañ seet lan moo gën a baax parce que itam paternalisme culturel baaxul ci réew ci réew yàlla xam na ko dal na ma bés ca euh, à l'extérieur ma wax ko fa jote ko fa ak benn ministre de la culture defe woon naa ne dinañ jël sax bakkan ndax rek bari tiitaral ñu kenn xamul ni lu tax ñu di leen wax loolu nangam nangam eh mais amul njëriñ yàlla xam na ko yàlla xam na ko ba tax na suñu waree déglu ay gor wax ni dañu bëgg dëgg-dëgg jox yonent bi cëram ba tax na dañu bëgg jàng alluha al arabiya dañ leen di wax ne nañu jàng bu am fayda bi te ñoom ñëpp nag dañ koy fekki parce que man ñi ma ko wax ñëpp tabarkalla la mag la ñu léegi dootu ñu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk bërki dem ba ci mujj defe naa maa ngi leen koy li euh, ba fa président Abdoulaye Wade ñëwee dem ñëw na ba dem waxuñu politique politicienne affaire culture

ma ne ko parce que culture lañu te culture ak nit a yem ma ko culture lañu te culture ak nit a ne ko culture dafay juddu dafay nàmp dafay fer dafay nekk waxambaane dafay sos kër dafay dem ba mag dafay dem ba màggat dafay dem ba dee ma ne ko loolu la du leneen ma ne ko ba ci culture asamaan ma ne ko parce que li ñu def ci lislaam léegi yëpp mën ngaa àtte ni euh, dafa dee ça il faut le dire ma ni ko loolu rek la du leneen ba tax na culture bu dul dee amul yonent bi dañ ko ni naka la ñuy ragale ne àdduna dafay tukki mu ne ah man de ku ma ko laaj jaaxal ndax man xaw ma ñu ni ko ndax amul màndarga mu ne ah am na màndarga kay ñu ni ko luy màndarga bi mu ni suñu demee ba xale bu góor xaritam gënal ko papa xale bu jigéen jàppe yaayam surga jàppe boppam buur ñu dem ba instrument musique yi ëpp doole instrument recherche ñu dem ba góor di solu ni jigéen jigéen di solu ni góor ñu dem ba boo demee ci capital yi ña fa gën a gudd tabax doxe tànki neen ak taati neen a leen war xufaat uraat yatataawaluuna fil binaa seetal loolu moom gisoon na ko léegi mi ngi ñëw dañuy def tabax yu gudd te te doxe tànk neen ak te taati neen rek moo jege ci ñoom ak yonent bi lu ma am teggin yépp mu wax loolu seetal loolu ma ni ko loolu mooy rey culture toujours mooy mooy rey culture man du ma tudd civilisation parce que gëw ma ko waaw gëw civilisation baat bi

bu ko dindi amatul ci àdduna waaye ku nangu ni am nañu échec am na sax il faut que ñu nangu ni am nañu échec bërki biig laa koy wax te dama doon doxantoog sama tànk ba ca koñ ba waaw julli nañu timis ba noppi benn nit a ngi ma romb naan ma du jënd tijaan nga tijaan nga <laughs> yow tijaan nga ma ni ko lan la dama lay jaay nga kasitu wasifa kasitu wasifa laa lay jaay ma gisal lii ci échec gu tariqa bi ndax teewe naa ku ko tàggu Serigne Babacar Sy mu ne ko bu ma ko waxati mukk kon nag suñu demee ba léegi ñu jaay kaset bu wadifa kooku kooku kooku na mu tudd kooku échec bu tariqa bi la maa la ko wax parce que tariqa dina def échec diine di def échec aada di def échec politique di def échec parce que loolu kenn du ko def seetal loolu te ko gàddu yoonam mu fàttali ma lenn sama ñaareelu yoon ca Kaolack xam nga Alaaji Abdu Kan jàkkam krinting la crintin yi ñuy jaay ci mbedd mi jàkkaam moom la woon sama ñaareelu voyage Kaolack ma jóge Saint-Louis dem Kaolack di ko seeti jàkk jër daf ma séduire ba mënatuma fa jóge te crintin la yàlla ate sëñ Babacar ku am kersa la ci àlla Abdu Kan Eh, léeg-léeg mu xaw ko cof rek ni ko ah teenu koo tabax waaw <laughs> teenu koo tabax bu ko rekkee defee rek góor gi mel na crinting bee ko gënal tabax wallahi seetal loolu ah yàlla ate mu jóge fa ndekkee jàkk ja lakk na xam nga góor gi dafay mujj obligé li ko sëñ Babacar wax mu def ko te mooy tabax ko waaye mu def ko tabax bu yemamaay nag waaw ndax moom noonu la mel kenn du moom maa ko xam waaw yàlla dogal ma demati fa sama xol bi tàng ndax li ma gisatul crainte te wóor na ma ne du jaaxaan ci man waaw pour wax la nii euh, nit ñi dana bari lu ñuy yittewoo te amalu leen jariñ ma am ci ñaari kàddu benn bi benn gor bu dëkk fii ci Tivaouane nekk député maire ñu di ko wax Alioune Mbaye nee na ma dañu tollu ci sunu diggu doole ma nekk ci armée française am lu nekk ci xaalis ñi ma yaakaar yépp ni am nañu xaalis ñu àndandoo booloo wut xaalis bu doy dem ci sëñ Babacar Si ni ko dunu bëgg tabax jàkkay Maodo ci nee na keroog gis nañ ci kanamam benn raklu danu mujj tiit ndax gis nga jàkka Maodo ni mu meloon waaw ah, daanaka rek ba noon la leen yeewee rek joxu leen autorisation pour mu def ko mu fàttali ma sama jàkk crintin bi ci des ki ma ko nettali waxkatu dëgg la muy Abdou Móoti Njaay xaritu jàpp Abdu benn bakkan la waaye man it sama xarit mu ni ma noonu dañu dem seeti Alaaji Abdu pour ñaan ko autorisation defar jàkk majuna waaye nee na tiit naa tiitaange gu nga xam mel na ni tiitaange ñoom Alioune Mbaye Palla ba wallaay ne xool ba ma xool ni ma est que bu Sëriñ ko doon dund di ko ko ñemee wax ne ma ni ko déedéet ne mu yem foofu ne mu rocceeku bu jëkk daw dem sama wax la ni priorité farata la waaye lu dul sa priorité nga nekk ci di télélil télélil télélil ban njëriñ la ah ban njëriñ la am nit ñi itam nañu dem ci priorité yi moo gën waaye loolu imam Bousiri yi wax ni lu jàkk yi di gën a bari jikko yi di gën a wàcc loolu mooy li fi nekk yuhattamu imaanun wa tubna masaajidu imaam Buusiri moo ko wax nee na jàkk joo gis léegi dañu rey dañu rey ngëm tabax ko ca kawam pour wax la ni nag priorité yaa ngi fi ah priorité ñu ngi fi boo ko waxee nag àdduna tukki waaye priorité yi ñu ngi fi waaw lu mel ni kon nag am na kilifa yu nga xam ne ku ko yàlla may doo juum na kilifa yu nga xam ni ku ko yàlla may doo juum te xaadiri ma jaxate kala dafa tagg Cheikh El wax ko ni ko suñu gàcce yépp dindi nga ko ndax dafa am borom doole yu daan rëppëtal seen fas ci suñu diggu kër yi ñoom nag rëppëtal nga sa fas yi ca seen diggu kër waaw ñu ko yàlla dogal ba nga fa jógee juróom ñett fukki jànq topp la yoo xam ni ku ci ne doomu deret la ni la denc ma walla nga wut ku ma denc ndax doyal nañu sëkk ci kufru ba nu juddoo ba léegi ci kufru lañu de léegi nag li ñu desee ci dund dañ ko bëgg jox sunu ni ko loolu yaa ni ko defal ni ko bu ko defee fas ya topp la bu ko defee yépp topp la mu ne ko kon yaa nu fayul waaye gis nga loolu taxoon na feder ba ci boppam way cheikh alhaaji omar pour dal ci kawam jaral na ko mu jàng arab pour dal ci kaw cheikh alhaaji omar kon nag yow muy taalibe yonent bi ah jàng arab war na la jaral lu ne war na la jaral lu ne ndax feder ba jàng na arab pour dal ci kaw cheikh alhaaji omar te booba alalu cheikh alhaaji omar ub boppam fu muy jële alal ju muy entretenir armée dal di xalaat ni xëy na ba mu demee màkk la fa ñaan yàlla nangu ñaan nga moo am xaalis bu dul jeex moo tax muy wax ni alxaaju qad xajja moo ko wax de moom fa dem alxaaju qad xajja walakin maala anil huda li kay yanaalal maala seetal loolu seetal loolu seetal loolu wax la ni loolu mooy li nga xam ni moo fi nekk su ko defee sëriñ Babacar Si moo ciy wax wax yu gàtt dafa daan wax ni ñi nu tëyeel ñi nu tëyeel ihaatati nuuril mutalsam ba mu agsi ci nun nee na ñoom ñëpp nga nayaleen lekk bu ko waxee rek sa xel ci Cheikh El Hadj Omar lay dem yàlla xam na ko mu ni ñi nu tëyeel ihaatati nuuril mutalsam ba mu agsi ci suñu loxo ñoom ñépp nga nange leen lekk seetal loolu seetal loolu ihaatati nuuril mutalsam observatoire la observatoire la Cheikh al Hadj Mansour bi mu jógee Makka dama ko bind defaral benn qasida pour ndokkeel ko ma tuddal ko ca daayiratul Ihab mu ko jaaxal tuuti ba mu ci ak Serigne Cheikh ñu ko est-ce que nga gis Cheikh waxtaan ceeg moom ndax est-ce que teelul ci moom wallaay ndeysaan mu ñëw nag di ma ko wax waaye fekk na yooyu du teel mënul teel sax ndax sama turoon tax yàlla xam na ko waaw yàlla xam na ko waaye ñu nekk di ko wax rek tabarkalla tabarkalla tabarkalla mujj na am solo wax dëgg moo tax ihaadati nuuril mutalsam tabarkal la tabarkal ah te du du du xaar baax du euh, c'est pas subjectif c'est c'est réel c'est scientifique ça il faut le dire loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg yàlla àtte bi jamono lëndëmee lëndëm lëndëm lëndëm mu xëy rek woolu woolu ma moom xaaj Mansour ku baax la wallaay ndeysaan alaaji mbay dafay wax ni li ma gën a jaaxal ni xaaj Mansour amee kër sa Serigne Cheikh ak Serigne Cheikh ni mu amee kër sa xaaj Mansour jaaxal na ma waaye booba dafa fekk nu bokk nu bokk rek waaw mu ni nañ ma woo ma daal jóg ci guddi daw seet mu ni ma man de maa ngi ànd ak ëmët loo man de maa la doon woolu ndax xam nga ni mission bi ma bokk góor gi jeex na ba dañuy dem ma ne ko am na mu ni ma ma doon la laaj ndax xam nga loo bokk ak Serigne Mbaye ma ne ko weesu loolu na bokk dëkk ca Ndar walla yàlla xam na ko mun ma waaw kay loolu rek la bëggoon dégg ndax dana jëm ci jamono bu nga xam ne ku xuloog sa mbokk dana bari ku sol mantu ñëw ni dafa defare te fekk dafa jaay si dara jare waaw lii la ma ko wax wallaay ndeysaan ñu continuer di waxtaan mu ni ma am nga ñaar ñu baax fii ci biir kër gi mu ne ma kenn ki sa mag la sa waajur la muy njong ñan mu ni ma kenn ki sa wëllëre la sa nijaay la muy Adama Kan wallaay ndeysaan dama nga bàyyi leen xel mu ni ma ndax ñoom gis nga ñoom rek ñoo ñëw ci sa papa ak ci yow waaw mu ni ma loolu rek moo lay won ni tabarkalla tabarkalla nga bàyyi leen xel mu ne ma nag Adama laa ci gën a yërëm ndax moom mi ngi bëgg a dundal wëllëre Alaaji Abdu Kan waaye mi ngi la bëgg a protéger yow miy jarwaatam ma ne ko pourtant disul ci moom mu ne ma kon nag tawfiq la wallaay noonu la ma ko waxee ma kon nag tawfiq la te wax dëgg tawfiq pire la bi sëñ kër dogee rek la Adama Kan ñëw li ma xam nga lu ma lay wax waxuma benn toq deret bu mu am waaye bu bu jë ñaq laa wax loolu rek laa lay wax dal di dem yoonam te wax na dëgg mu ni ma parce que dafa am ñu nu rax te bokkuñ ci tariqa bokkuñ ci famille waaw li leen indi ci dëkk bi xam na ko moom ko wax ci làmmiñam ma ni ko bu yeboo rek sa xel na ci dal yàlla xam na ko moo tax ba tey seen pexey caaxaan yooyu mu jur tàbbi ndax gisuñu kenn ndax gisuñu kenn yàlla xam na ko gisuñu kenn tabarkàlla góor gi defar nañ ko denc ko kenn yëgul wallaay ndeysaan te benn jam-jam amu ci parce que diggu këram jàkkale ku ko fa jullee wàcc diggu këram jàkk la ku ko fa jullee wàcc moom laa wax Serigne Alioune Gueye mu soog a taf gémmiñam ni ma fàtte woon naa ko ni ma kon ma jële Serigne Moussa comme mooy imam ratib bi boog mu jullee ko man ni ko bu koy jullee rek àdduna di tukki parce que kon dana sédd sharia waaye du sédd jolof àdduna tukki ma ni ko nañu jëli mam Mbacke moom mi jur sëñ Babacar jur Alaaji Mansour jur Alaaji Abdu nañ ko jële mu ñëw jullee ko moo ndax magam a julle woon Maodo ñu dem jëli maam Mbacke mu ñëw moo jullee sëñ Babacar si kenn branché wul ñëpp kontaan yëpp daal tabarkalla tabarkalla pour wax la ni la wax ci Adama kan dëgg la de wax dëgg la borom mission pire la yooyu fi nekk yooyu fi nekk leneen nekku fi tabarkalla tabarkalla ñu am mag ñu baax ñu ci dimbali ku mel ni góor gi Ibnul Arabi ku mel ni Mbouna Albouri tabarkal la tabarkal sëñ Babacar damay wax ni sa ñetti xarit jaaxal nañu sa maam Muntaga Taha ci moom boobu bu ñu la tuddee rek moo xam mu ne ma ak sa baay bële Mbouna Albouri bu ñu la tuddee rek moo xam ak sa baay bii Massamba Mexe mu ni ma man daal loolu jaaxal te fekk yàlla ma booleek ñoom yàlla ma booleek ñoom góor gi ma sàmba mbexe at mu jot mu yaral ma nagu gàmm yaral ma xarub sabaski may ma fas at mu jot waaw yàlla xam na ko ndax dafa ñëw ci seen Babacar ni ko ah, dama di mag dama di mag te bi ma ganee àdduna ba léegi ma suma fàttaliku at mu ma yàlla joxul teraanga ba léegi maa ngi waaj pour dem ci bàmmeel ah te comme xaw ma fa kenn ma ni war naa ñëw waxtaan ak yow ndax bu fekkee teraanga boobu mu may defal ci àdduna mën na continuer foofu ah ñu dimbale ma ci mu ni nañu woo Cheikh mu ñëw ñu wooma ma ma mu ni ko kii de turandoo mën na ko kon nag ba yóbbu wax ko ko lii kat mooy sama wóllëre ak góor gi ma sàmb bu mag yàlla xam na ko at mu jot mu yaral ma xaru cabas yaral ma nagu gàmm tabarkal la may ma fas seetal loolu pour wax la ni fii ay nit ñu amul fenn fi nekk tabarkal la tabarkal waaye li ma benn tubaab wax ni ma xamuñu seen may xamuñu ko nekkoon ñu organiser ko mu ni ma man li ma gis yi te kooku moo raw ci tugal yépp xaritu benn bakkanu Senghor la woon li leen teqali mooy bi ma nekkee ci opposition mu bàyyi Senghor yàlla xam na ko te li mu jàng kenn jàng ko ci kaw suuf li mu am jaalal kenn amu ko tabarkal la tabarkal yàlla xamna ko waye tam may wax ni Sénégal yi li ñu am ci may xamuñ ne kon dinañ ko organiser loolu ma ñu am may lu ñu ma xamuñu ko mo taxit jëm ko xam baxna jëm ko xam baxna ay nit ngi fi yu amul fenn tabarkal tabarkal tabarkal tabarkal yu amul fenn kon nak amoon naa maam joo xam ni dafa mujj sëñ Babacar di ko wooye maam seetal lool seetal lool te ñi ci toog fii ñëpp xam nañ ko maam dog ko maam dog ko maam dog ko benn waa bu kër yoro dund na mujj sëñ Babacar dog ko ñëw naan ma ni ko waaw ñëw na walla ci tedd ngam rek waaw muy sama maam boo xam ni bu gàmmoo lu nekk la may indi te du tudd sama tur mukk def naa naa ne jullit ba waaw seetal loolu tabarkàlla bu xasee agsi rek ñu arrêté rang yépp bàyyi ko mu agsi ba am benn bés ma ñëw ci suba di ziyaare góor gi jóge Dakar fekk muy bésu gàmm mu ni ma maam dog ko ñëw naa seetal loolu xam nga loolu moom doy na sécurité tabarkàlla tabarkàlla ndax ñoom dañu xam ñooñu ni ñu baaxee te dañ may bàyyee ñoom nag xam ni ñooñu itam samay way jur lañu wax dëgg yàlla moo tax réew mi tabarkalla ku yóbbu rek seet nooy def ndax confrontation baaxul te ñiy firi kutiba aleykumul qitaal am na ñu koy firee baaxul jàmm rek moo gën

wa asaa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum moo tax imposé wul dafa proposé ndax dafa bàyyil buntu dialogue yàlla xam na ko ah amruhum shura baynahum xanaa ña taxoon sëñ Babacar dàq ko ñooñu dañu nekkul woon ci dëgg amruhum shura baynahum am nañu ko jëloon rekk nari jël kër gi këpp ko ci sunu kaw parce que dañu dégg dégg jékki rek dégg rek ni sëriñ Bachirou Mbacke dafa ñëw seet si sëriñ am ànd ndox alaaji euh, bu sëriñ jaamal ak alaaji Amadou Dem surtout surtout ji Amadou Dem bu si kon ñëw naka lañu dem rekk am ñu xalaat ni ba wattuwul lu yéwénal kër gi lañuy dox kon nag nun nañu fexe ba yàqu ko seetal loolu seetal loolu daal wut seen comité xaat nit dañuy ko invité ñëpp ca bàmmeelu Maodo mës nga gis bi ñàkk teggin mës nga gis bi ñàkk teggin te ñoom duñu xaadir duñu murit du ñu laayeen du tijaan ku ne chapeau la sol eh, dañuy woote ca bàmmeelu Maodo et eh bien pour nit ñi juboo def lii def laa ndeke ñetti kilifa yi ñu fi dégg rek moo toj seen bopp ndax yàlla nee na amruhum shura baynahum nangam nangam sëñ Babacar ni déedéet kooku ay amrun qudiya bi layli la ah moo leen raw ñoom ñëpp wallaay ndeysaan laa ko defal du benn sax wallaay ndeysaan mu ni amrun xudiya bi layl la parce que nga gis assemblée nationale boo xam ni député yi trois heures du matin la ñuy jóg te dañuy làqutu par benn jëm ci assemblée ah sëñ Babacar ni loolu kenn mësu koo gis assemblée kay ba député yi yor yor lañ fay dem wax dëgg yàlla te ku ne dina xam lañ fay wuti nak amrun qudiya bilay do amruhum shura bainahum wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan ah loolu ken mësu ko gis man na ngeen len wax ni bu fi sen tank dëggee rek ma xonqal sen bat moo ko wax ci lamine setal pour wax la ni ak aduna musu mësul ah musu mësul nit kay mom moy am yite bopam rek ak pas-pasu bopam xam fu muy jaar ah ndax itam boo ca boo ca raxee xel rek solution am boo ca raxee xel solution dafay am ndax Serigne Cheikh Batou moo nu daan jàng